النبي محمد علي يا محمد يا حبيبي يا محمد من كنت طبيبي صلوا يا أهل الكمال النبي محمد علي يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد الأمير بنو إلى من وحيك من فهمه سر ونعمة طريق من قلبه جهل ونعمان قلبه نور ورحمة جل باري محمد علي يا محمد يا حبيب محمد شيبة الأنبي قلبه نور ورحمة الأباري محمد علي يا محمد يا حبيبي آه. يا محمد كنت سكري والمباسيس كريا وزنايا محمد يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيبي والمباسيس كريا وزنايا نور إلا بريا وبنايا نونيا وروائي عن هيجت هي جد يا محمد يا أبي يا محمد كنت قلبي كمحب خطت أيام ومسوق حملا يا محمد يا حبيبي آه، آه، يا آه. محمد كنت بي كمحب خطتي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بالأمير كمحب الخطتي ومسلك الخطتي خطت ايام ومسوقي قطر النار واسولي خطت ايام وتزلزل محمد يا محمد يا حبيبي آه، يا محمد محمد الامين يا امام الانبياء يا ملاذ الاتقياء يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد الامين يا امام الانبياء يا ملاذ الاتقياء يا محمد يا حبيبي يا محمد شيبة لمي يا سراج الأولياء دملي فيك تجاري يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت لي آه يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأصفياء آه يا إمام الأنبياء يا ملاذ الأصفياء يا الأنبياء يا ملاذ الأصفياء آه، يا سراج الأولياء دمعي في المجالين يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد الأمين كن خدا يوم القصاص يوم المقصدين راسي يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد الأمين كن خدا يوم القصاص يوم المقصدين راسي يا محمد يا حبيبي يا محمد جاي محمد الأمين كله خير البرية مدرك يا محمد يا يا حبيبي يا محمد جاي محمد وعلى سحب كرام معنا بيغ المجامل يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد الامين وعلى سحب الكرام معنا بيغ المجامل يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد الامين وعلى سحب الكرام معنا بيغ المجامل يا محمد يا حبيبي يا محمد محمد neex na neex na trop macha allah tabaraka allah euh, euh, ñu ñëwoon groupe sopp na bi mhm. euh, ñu sikkar fi lu neex ci mhm. kii di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. macha allah tabaraka allah um, hope ne rek ñi ñoo seetaan ak sopp daal jiyaatu yees yi loolu neexoon na leen dugga na leen comme ni ma duggee <laughs> ndeysaan ah, cere neex na moom sax daf ma dugga ah, fan doon rek tuuti ma doon foofu sax joyeen gaye ah <laughs> neexoon na ah, di kontaan si ñoom bu baax a di kontaan tamit si Mohamed Lamine Dabo maa ngi gis ñu ngi tagga yonente mu ngi kontaan mu nekk tomaam ah di bég ci moom bu baax a baax a baax nañ am kola si line bi allo kola asalaamaaleykum asalaamaaleykum <laughs> dafa rëcc rek kola boobu benn tey euh, uh, di contente rek si groupe soppe nabi di bekk ñom bu baax baax di contente si suma mag ju baax ji Mr Abdoulaye Ngom mhm. di contente si mom bu baax baax di ko nuyu si weeri koor bi di contente tamit si faké Wa Touré di bekk ñom bu baax a baax baax ñu baax lañ kilifa lañ ah nga kilifa mom fo nga nuyu ko sha allah di ci bégal képp ko xamné ne rek yaa ngi ñoo seetaan yaa ngi toog di dal daal sama bekk ci bu baax a baax ba taxna rek dama ci mbégal ko nga xamné rek sama papa mhm. di Ablaye Jom fële ca Amérique mhm. wala dañoo jël koola bi rek ci lan bi yes hello koola Hello. Yes, hello. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. damaa Oke, Touré. ok ñu ngi laa déglu. maa ngi lay wax Touré bu baax. Ya? Mhm. Ya? Oke. Oke. nga wax Touré yaay. Oke. bi nga kan wax Touré bi jaay yëpp. ok. ok. maa ngi wax Touré jamono bi jaay. ok. mi ngi bii ba gis mu sa on sax. loo loo jaamu ju bari la macha allah. maa ngi ya, wax Oke. Imbol. ok. ñu ngi la ko dee. ok jërëjëf ok dinañ la ko taayal incha allah jërëjëf uh, waaw di kontaan bu baax ci kola boobu noonu uh, mu ngi naa call 4375 905 uh, mhm. di bëgg ci ñoom bu baax a baax a baax a baax di kontaan ci groupe soppe nabi loolu neexoon na torop macha mhm. allah neex na torop um, waa soppena bi def nañ fi lu neex a ya. neex mhm. waaye di wax ñu ah, ñoo sétan rek né dinañ ci wat tay ñun la ak wa soppena bi ba programme bi di jeex di ci bégal képp ko xamné rek yaa ñu sétan képp ko xamné euh sopp nga nabi lool mhm. ah, nabee la taxajuk mhm. ma ngi bég ci bu baax a baax lépp luñ fi sikar tey rek inshallah dinañ la ci bëggé waaw duñ def dara nak dañu ànd ak confort fale ci control room bi ah, gaay jox ñu bëna vidéo clip suñ dellu ci rek ñu continuer ak groupe soppen bi